loolu noonu euh, gars yi di diingat ñaan ñu tedd ñooñu muy Cheikh Ibrahima Fall Sëñ Touba nga may ñu ci tuuti rek sa gis-gis. après ñu dem ci yeggale émission bi. xam nga li ko def mooy nit ki bu mu sëlee ko suukar. Mhm. soo ko bëggee wax lu suukar di saf mënoo ko ko expliquer. du ko xam ki mu sa lekk kaani soo ko bëggee wax ne ko kaani daa saf wala daa weex mënoo ko ko explique ba xam ko parce que mosu ko. dëgg la ruu yi Seydina Mohamed tànnoon ci la Sëñ Touba tànn. Mm-hmm. li murit mooy li nga xamante ni bii boo ñamul sëriñ bi munoo xam lu mu mooy li ñuy yëg nii waaye loo xamul fu muy balle nag mënoo xam fu muy fàtte loolu rek la sëriñ bi tànn da leen a tànnut fi mu ne loolu rek la sëñ Aadi ca Faas daa siyaare si fii sëñ Basiiru Mbàkke ci kër gii sëñ Aadi mm-hmm. moo jàngal ma Abdou Aziz Si Malick da baax bu ñëwee sëñ uh, sëñ sëñ sëñ Basiiru da koy xool ko waaye sëñ Aadi ni nga baaxee ay boo doonoon murit mu ne da xam dara sëñ Basiiru sa wajur bu baax wa day tànn te daf maa tànnut waaye nangul naa ko ko nag mm-hmm. problème bi nag moom du du du du ay diwéy sama sëriñ ak ñee dañuy julleeg duñ julli hmm. maam Seex Faal dafa waxoon ne rek julli yër sa bàmmeel wut loo def ci bee gën a wóor waaw la ko tàmbalee ci aadama hmm. ba ci noohin ba ci idrissa ak ilias hmm. ak Moussa ba ci isa ba ci rasulullah ñooñu ay yonent lañ woon ndax dañ daan julli waxtu yu juróom ñoom daawuñu julli di waaw léegi ñoom seen seen seen yooyu fu ko daan teg kon am na lu daan julli ñoom lu dul la ko tàmbalee ci aadama ba ci rasulullah rasulullah ñaata at la julli nabi lim julli yàggut di nekk na fi lu yàgg julli xewut nabi nekk na fi lu yàgg laa wax julli xewut maam Serigne dafa wax ne julli yër sa bàmmeel la wut loo def ci bàmmeel bi gën a wóor ba ñuy wax naan nañ jàpp mu ne adoom nu ngeen di jàppee ñu ne raxasu gallaxndiku saraxndiku sëlmu raxas loxo bopp nopp tànk mu ne adoom niru na ko waaye des na ciir bi bokk ci njàpp mi te du laal ndox mi nag ñu ne ban la mu ne nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi buum gi téye bi yàlla la ko gën a jege da jël baatu laa ilaha ak nangu dogalu yàlla yi raxase ko sa xol bi ba mu set wecc illaa man atalaaw bi xalbin salim waaw kay nga soog a mën a jàpp nag yàlla nangu waaye yow yaa ngi jàpp yaa ngi soxor yaa ngi jàpp avant nga julli ji benn waaye romb la soof la yaa ngi jàpp ba pare benn booy boo ne barki démb la fi toogoon yorul dara tey mu nga romb ko fekk ba boo duggee ci biir jumaa ji mu dugg ci biir jumaa ji sax doo bëgg a dend ak moom ñu naan mbagg mbagg tànk tànk dend leen waaye ka nga dendal ignoré nga ko mu leeral la yow kii kontaanoo ci moom bu julli koo ko ba kañ mu yaakaar ne jàmm te li nga yor li nga wa li la nga doon waaj a woo rek la nga waajoon a ndogoog lépp nga boole ko jox ko Sëñ Tuubaa addiyee boobaa gën a gaaw fi ne wàcc daanoo ci gën a gaaw <laughs> ma ne mbër kala jaggi ruur mbër kala jaggi ruur ku daan fukki yoon moo la man lii rek la nit nag du jaamu lu mu gëmut nit du jaamu lu mu gëmut dañ ne asaka maam Seex Faal ne adoom asaka nun koy joxee ñu ne ko da ngay denc alal ren ba déwén boo joxee yàlla juróom-ñeent jël benn maam Seex Faal ne adoom ki ko santaane moom ko santaane tuuti na lool waay mm-hmm. mag mu toll ni yàlla mm-hmm. may la alal mm-hmm. soxla waat ci di la ko laaj ngay séddoo moom di ko ëppale teggin mayewu ko comme alal ji yow bi nga ñëw indaale woo ko sunu borom moo la ko jox bi mu la ko joxee ba noppi da cee soxlawaat yow ngay séddoo moom di ko ëppale maam Cheikh dafa leen ay teggin mayewu ko gannaaw yàlla moo ma ko joxoon ndax bi may ñëw indaale ko te da koo soxla lépp laa ko joxaat féetee ak moom moom loolaa gën a gaaw waaw di xaar yàlla a gën a gaaw ku xamul foofu xamoo fii fi mu ne murit dong moo sañ a viré kontam mhm. am na fii sama génn góor gu wax góor gi Babacar Saw mhm. lawbe la yàlla na ko yàlla yërëm bu yàggul rek la dafa demoon ca geer bu yàgg ba. ci ndigalu sëriñ bi. Mm-hmm. bi mu ñibbisee nag français bi ñuy fay. Mm-hmm. moom dafa ñëw rek dem na ci geer bi ñibbisee rek moom continué ab liggéeyam. Mm-hmm. nekk topp dëkki Saalum yeeg yooyu di tourné rek yoonam li xam nga mag ñi illettré lañu woon jàngul woon dara. ndeke ñi ngi koy wër pour fay ko xaalisam. mais ñoom pour ñoom dafa dee. góor gu yàlla googu sama koñ la dëkk. jaay na këram jox ko suñu Saliou Mbacke addiya mbokkam yëpp ne ko da dof yow yaa ngi am ay taaw sa ñoom ñoom njaga ñii ñoom móodi ñoom diw ñoom diw yorelu du génn kër di ko jaay di ko jox Serigne Saliou addi mu ne mu leen maa ko def falaa toll moom moo daan yettal Serigne Saliou addi euh, allu yi daan yóbbu xel ko moo ko daan santaane ci law bay njaarim yëpp ñu ko yett di ko yóbbu mm-hmm. ñuy dem di dem di dem ba jëmmi jamono bu yàggu rek li ma lay wax matut matut fukki at fi ne mm-hmm. ñu jekki-jekki ñu découvrir ne ndeke góor gi deewul léegi nag biñu demee xool gouvernement France lañ ko daan fay ndeke salaire yi dañ ko daan dajale ci franc français dajale ko di ko dajale di ko dajale ba mu doonu jàll ñu soog ko koo fay ci la am këram yi yëg yi mu am nii yëpp njabootam gépp am ci ay xéwal muy soog a génn àddina fi mu ne mooy wali si ni na diyanum subuluna ku gëmul sëñ Bamba gëmoo Cheikh Rafa sañoo sa di ko jox sab sëriñ addiya maa la wax lii waaye nag li ñuy wooye ab sëriñ comme ñun ni ñuy tuddee ab sëriñ mooy nit comme yow koo xam dalaa jiitu ci yàlla di la wanu yoon waaye ñun sëñ Bamba ëpp nañu sëriñ kat mm-hmm. waaw ñun ñoo ko matul ay dongo ñun mm-hmm. ñun matunoo dongo yi sëñ Bamba waaye sëñ Bamba moo ëpp nañu ay sëriñ waaw waaw nis di joxee rek Cheikh Fall na ko jàngal muridu lay saadix ku dëggal dugg nangoog njaam te dis gor jaayante loo dul xàcc wax loo dul weddi namu lu jege te sori lool loo gis baax na loo dégg neex na dugg xuru yàlla gas ree ni yéene witti xasam toroxlu ak xobi rëccu soob ci gënu tuub dëbëg kuuru tabe yekk ci ndabu teggin séddalee koo gi muñ muñ lu muñ wut yor ko yor wut koo tooñ nga bàyyi ak yàlla rek jërëjëf kay yëf yi fi mu ne. allah kon nag bàyyee nañ leen ak yàlla. comme niñ koy waxee bu nu bu nu bu nu dëpp bu nu gestu. déedéet bu ñu bu ñu bu bu ñu duñ toog 18 safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rek di màggal. bisu